mu yónni ñu ay teraanga mu guddee lool bokkut ak jëfi président de la république Macky Sall ndax ku ne xam na diggante président ak daaray kokki diggante premier ministre ak daaray kokki moom mooy dikk ci loolu mu yónni ñu quatre cent quatre cent litres diwlin fii ci kokki ak vingt cartons suukar gros suukar ak vingt cartons or de javel ak vingt cartons madar ak cent cartons saabu kii nag ak deux cartons ceeb ak deux deux tonnes ceeb yoo xam ni dina si léegi incha allah mu mel ni nag sëriñ Maxtaar kii taxaw tey yéen bokk jenn deret loolu nag dinañ ko ko wax dinañ la ko wax incha allah di la wax daal ni moom mii taxaw sëriñ Modou Lamine Gueye mi jur ndeyam Asta Dior Lo mi ko jur Ale Sali loo mi ko jur gaynde la ko jur bokk sëriñ Modou Sakhir mi menn maam kon du dul woon ministre tamit. dafa war a ñëw fii ndax deret mam Maharam Mbacke mii maamam sëñ maxtar Diop sëñ Makhtar Ndoumbe ko jàngal fii Cheikh Diop ba ber ko wax ko barke ba topp na la gëm na nag barke boobu mooy lii li nga wax léegi du ñun ñi nekk ak moom xam nañ ni fu mën a ñëw ci àddina fii ko gënal dafa wax ni moom dafa gëm ci ñi nga xam ni gouverneur alxuraan mooy sauver réew mooy dimbali réew mooy dimbali aw askan mooy tax réew mi am jàmm kon doomi daara la di di sëtub xaadima jaxate kala kon dëkki maamam yëpp ay jàng daara lañ kon su ñëwaatee ñu yónni ko ci daara histoire retiendra kon madame la ministre vous la parole Serigne Bassirou Khadima Awa Ba nag mooy magam di conseiller am di léppam gouverneur jërëjëf yéen a bokk mel na maam am solo kon ñu ngi jégg lu baax mbokk yi dañu doon leeral rek ndax yonent bi nee na na gëstu seenu bokk lu ngeen ko mën a jokkee nit ki dafa war a xam boppam bala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 damay jël kàddu tey jëmale ko ci kilifa yi fi toog jëmale ko ci daare ji jëmale ko ci ndongo daare yi muy kàddu bu jógee ci son excellence le président Macky Sall ni ko Cheikh Anta waxe léegi loolu mooy dëgg dinañ ma yónni ci jataay bu ne waaye jataay bii bokk na ci yi ma gënal ci yónnent yi ndax jataayu lislaam jotaayu diine képp ku sunu boroom jagleel nga fekke ko ba di ca jël kàddu ak sant rekk moo la war sant naa bu wér sant bu amul ab waaye aussi may jël kàddu ci turu son excellence de président Macky Sall mi ma yónni tey boole ma ak tous les services de l'État du Sénégal wax nañ ko sànq délégation bi ràññale nañ ci gouverneur de la région mais ràññale nañ ci service boo xam ni rek yaa ngi ci gox bi di liggéey jëmale ci askan bi jëmale ci tout tànk yi waaye jëmale ko ci daara yi sama kàddu tey day fekk ci kàddu daaw ndax daaw laa fi njëkk a jël parole wax ci turu gouvernement bi jébbal yóbbante son excellence le président Macky Sall jo jébbal yóbbante le premier ministre Amadou Ba ak tous les ministres du gouvernement tey bu ñu yàlla mayee ñu fekke waat ko lañuy waxoon daaw la ñuy dàbbali complété ko mais réaffirmer ko pour wax leen son excellence le président Macky Sall fi mu taxaw jëmale ko ci daara yi mais également fi mu taxaw jëmale ko ci tu tànk yi ci fii si réew mi son excellence daf ma yóbbante kàddu cant ak ngërëm waaye également ay kàddu delloo njukkal jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy kilifa daara yi muy sëñ Maxtaar naar loo cantu président Macky Sall de jëm na ci yow mu ni dañ koo dénk réew mi dénk ko mbooleem sénégalais kon ku taxaw jàpp benn banqaas ci réew mi di ko saytu di leen jàppale moom président de la république wareef la ci moom mu delloo la njukkal wareef la ci moom mu encouragé la ndax danga ko jàppal loo xamante ni moom la waroon muy lan muy tuut tànk yi yore daara buñ naan cinq mille quatre cent quatre vingt dix moo fa nekk booba du caaxaan daara ji ni toll ku ko yore wëlbatiku nga yor ko yor boo xam ni musoo ñoo sonal ñun état ci dara musoo ñoo laaj lenn buñ fi ñëw di indi suñu ñàkk sax day fekk li ngeen fi def daf ñuy raw lu yàgg kon ku dam taxawaay boobu ci mim réew dafa yelloo ñu sant ko gërëm ko dafa yelloo ñu delloo ko njukkal cantan gërëm bi nag son excellence daf ma ko yóbbante jëmale ko ci yaw ndax yaa jiite daara ji mais jëmale ko ci ki nga xamante ni moo sos dëkk bi muy Serigne Ahmed Xas Sahir Lo di dolli ziar ci moom di ñaan yàlla leeram yàgg fi lool ba ñun ñëpp ñu taax ci barkeelam sëñ Maxtaar naa ci turu président Macky ci turu premier ministre Amadou Ba ñu ñëw tey indi la sunu ziar mais ñu ñëw tey feddali sunu taxawaay wax la ni boo leen yeewoo di ngeen ñu gis. boo leen tëddee di ngeen ñu gis ñu ànd ak yéen ndax lii ngeen liggéey ci xale yi ñëpp teg ci seen bët rawatina ñun ñu nekk ci gouvernement bi mu nekk un modèle inédit gestion daara modèle boo xamante ni mën nañ koo jaay à l'étranger ndax ku yore lu ñu toll ci xale te laaloo état sonaloo état xaaroo état ku dara ku jara delloo njukkal nga c'est un modèle boo xamante ni ñun Sénégal bu ñu ko amoon ci gox goxaan yépp bu ñu ko amoon ci dëkk yépp kon état dina noppalu te du am tiit du am jàqare jëmeloo ko ci président en charge de la petite enfance kon ñu ngi lay sant sant bu amul ab di sant ñi nga àndal liggéey bi yépp ndax wax dëgg yàlla ku xam daara ñi ni toll xam ne am na ñu ci jàpp ñi nga xamante ne dañ fay jaar jàll jàngi fa alxuraan ba mën a yore tey ay bànqaas ci état bi ñu ciy lim ñi nga xamante ni suñuy waajur lañu suñuy mag suñuy xarit sëriñ Basiiru Awa Ba Xaadim Awa Ba saa su ne di jóg ci di soññ ci lépp lu ñu mën a def ci daara yi nañ ko yokk ba biig ci guddi daf may woo di ma laaj foo toll ak di ma laaj ñooy ñëwee kon kooku ku taxaw daara ji la te lu ñu leer la waaye aussi noonu lañ ciy lime le chef de village Cheikh Diop Kokki sunu mag joo xamante ne aussi ñu bokk ak moom liggéey yu baree bari du jóg ci ñu soññ pour ñu gën a jàppale daara ji du jóg ci ñu soññ pour état gën a taxawu kokki loolu nag dañ ciy sant aussi monsieur le maire damay jiital sant bi le général Meïssa sere kooku day jóg ci du jóg ci bu may ñëw kokki bu nee suba la kokki ba bis may egsi mu may laaj foo tollu di ma soññ ndax yegg nga kon monsieur le maire ñu ngi lay jox nuyoowu toute la commune de kokki nga eggaleel ñu ko ci xale yi eggaleel ñu ko ci mag ñi waaye beral ñu ko ci jigéen ñi ndax ñun fu ñu jëlee kàddu fu ne dañuy beral jigéen ñi ndax xam nañ ni jigéen mooy société jaara ji li muy taaru l'islam bi li muy wér xale yi li ñuy tari yépp c'est parce que dafa am jigéen ñu nekk ci gannaaw di togg di yàq taxawu xale yi bañ mën a tari kon maa ngi leen di delloo njukkal jigéen ñi ci daara yi yaayu daara yi ndax man yaayu daara laa ni nga ko waxee saa su ne doomu daara laa kon dama xam taxawaayu yaayu daara yi ñu ngi leen di delloo njukkal di leen nuyu di leen sargal sama wax nag du gudd ndax ni ma ko waxee woon daaw dama koy làbbali ren son excellence le président Macky Sall taxawaayam ci daara yi kenn nattable wu ko léegi ci Sénégal ba mu jëlee réew meeg léegi ci fukki at ak ñaar lu dul mesure jël na ko jëmale ko ci daara yi mais jëmale ko ci ndongo daara yi ñu mën cee tànn rek ay quelques yoo xamante ni faaw jox leen ko bërki Dembo Ndiaye mi ngi def la journée internationale des daara ou nationale des daara mu nekk lu bees loo xamante ne da koo tëgg jëmale ko ci daara yi pour waxtaan ak yéen pour càmmaar lan mooy jafe-jafe daara yi pour xool lan mooy solution yi nga xamante ni moo ci war loolu mu nekk initiative bu rafet boo xamante ni jur na tey lu bëree bëri jëme ci daara yi subvention bu mag bi nga xamante ni def na ko muy 6 milliards da koo dagg ci budget bi état bi ni nañ koy jëmale at mu ne ci daara yi ci ngëneel ci jàppale waaye également le prix bi nga xamante ni jagleel na ko pour le récital de Coran nga xamante ni benn xale bu jigéen moo ko jël ren ñu koy wooyee soxna Ndey Buso ja ja Jatara ma koy félicité ndax wane na taxawaayu jigéen ñi ci wàllum lislaam te wane na égal taxawaayu xale yi ci biir daara ji mais également mu joxe loo xamante li ñuy wooyee l'élection l'élection d'une direction boo xamante ni day jël en charge problème yi nga xamante ni daara yi am nañ ko gannaaw bu ñu amee inspection des daara président mu ni nañ dem ci direction des daara une direction nationale boo xam ni bu ñu si liggéeyee liñ ci war a liggéey fekk ay at mën nañ dem wax une agence nationale pour les daara mun nañ dem ba egg ci un ministère de dédié aux daara loolu yëpp taxawaay la gëm-gëm la doxin la ba nga xamante ne war nañ ci mën a yegg loolu nag muy wane. taxawaay bi nga xamante ni son excellence taxaw na ko ak gouvernement bi jëmale ko ci daara yi président de la république Macky Sall dafa gëm daara ndax doomu daara la mais ñi muy àndal di liggéey ñëpp dañoo gëm daara ndax ay doomu daara lañu suñu taxawaay gouvernement du Sénégal mooy nan la def ba daaree yi gën a dëgër ndax xam nañ njariñ bi xam nañ li daara di def ci éducation bi xam nañ li daara di def ci préservation des valeurs ndax bu nee xale li gën a am solo. du li nga koy jàngal mais li gën a am solo loo koy taatanee ba mu xam lan mooy valeur am ba mu xam lan mooy culture am ba mu xam lan mooy religion am te loolu daare yi lañ gis ñu am ci taxawaay bu mucc ayib kon encore une fois may confirmer l'engagement de l'État du Sénégal ànd ak daare yi ànd ak ndongo daara yi xool jafe-jafe yi ngeen am wut ay solution proposé leen ko loolu mooy suñu taxawaay tey mooy suñu taxawaay ëllëg am na ko ko wax sànq budget bu ñu jox le ministère de l'éducation 40 pour cent bari na bariwul waaye bu ñu sañoon budget bi ñu jox daara yi moo koy ëpp fuuf ndax apport bi ministère de am à travers l' enseignement français bu ko raw l' enseignement islamique am na ko ci mim réew muy loo xamante ne leer nañu wér nañu pour ñu àgg ca nag dañuy àndandoo rek comme ni ñu ko defee tey di liggéey di waxtaan di xool naka la ñuy gën a ñoŋale ba ñu egg ci loolu nga xamante ni mooy yéene président de la république mooy suñu yéene ñun mooy yéene képp sénégalais ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier mais di beral sant ak ngërëm sunu oustaz bi oustaz Alioune Sall fu ñu ko fekk dañu koy beral sant ndax dafa bokk ci ñi nga xamante ne du ñu jóg ci du ñu yee du ñu jóg ci di ñu teg ci yoon du ñu jóg ci di ñu taataan ñu ngi nuyu ñëpp ku lim da ngay juum bàyyiwuma kenn mais sant ak gërëm encore sant suñu borom bi nga xam ni moo ñuy may saa su ne kattan ñu mën a ñëw toog fii bokk ak yéen bis bi bokk ak yéen taataan waxtaan jële fi ay ngëneel di ñaan yàlla suñu borom. mu mayaan ñu déwén bu ñu fi ñëw ñu gën a am taxawaay gën a am tal gën a am kàttan ba gën a mën a bokk ci liggéey bi ba gën a taaral bis bi ba gën a taaral euh, daara ji di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. jërëjëf euh, madame la ministre. dégg ngeen kaddu googu am na solo de kaddu gi. waaye ñu ngi nuyu nag sëñ Ahmad Mbacke moom sëñ Moussa Abdou Aziz jàng fii ci daara ji sanc dëkk bi ñu wax keneen yal na yàlla guddal aw fanam. jërëjëf El Hadj Modou yal na ko yàlla fayal sëñ Ahmad ñoo ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf El Hadj Modou Mbaye